way wa dee naay mooy gën di mbindéef màkk la juddoo wala gàddaay yow yow yaay sam yaay bay fi laay saabu nawet bi yegsee ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci caaroy gaar di dundee ci ay jafe-jafe ak njàkkare li ko waral mooy ndox mu balee ci suuf di jëm ci seeni kër ba tax na ñu dëkkee ay jafe-jafe yu metti metti yoo xamante ni saa su nekk ñuy wallu ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy responsabilité ñu jàppal leen ci loolu ci loolu nag ñu daal defoon ak gëstu ci nit ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci Caaroy gaar euh, dëkkee ca watu usine de pompage bu Caaroy ngir xam seen jafe-jafe yi nga xamante ni lañ nekkee seen kër yëpp daal dinay taa ci loolu ñu dem fekki leen ngir waxtaan ak ñoom seen jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañuy ñuy dundee. suñ ko taalee rek napp day wàcc ñun tey daanaka 10 jours tey. 15 jours tey léeg ñu toogee amuñu dara. ndax utiliser ngeen ay pompe ak affaire wala. usine moom pompe pompage bi la ñu fay. forage suñ ko taalee ñun ñëpp ñu ngi jàpp waaye suñ ko taal ñun sonn xoolal matériel bi xoolal armoire lépp ndox kese la matériel lépp yàqu na xoolal sama yaay mag ba barki diwlu fii a daanu mu ngi nii dafa am koo xam ne saa yi mu aju sala mënul wàcc hmm. tey ñuy wàcc ñu koy wàccee ñoo koy yóbbu amate suñu dund bi ñu dund tey métti na trop mënoo lekk mënoo naan suñu tànk yëpp a boobu amoo toilette amoo foo doggee amoo foo lekkee amoo foo teg sa njaboot suñu njaboot ñoo ci obligé génnee leen instant bi ñu kese ñoo ci des ñaati pompe 14 pompe yàqu bi ci nekk mu jar 60 mille 60 day branché ndox mi day doon ba nga ko doole pompe yi nag nga tegaat bu jëmaat beneen démb gasoil jël nañ 10 000 francs barki démb jël nañu 5 000 francs loolu dañ cee war a dund amatuñu dara ñu doon xëy mënuñu xëy ñu doon liggéey kenn mënutul dem fenn. Mm-hmm. sonn nañu lépp lu ñu mën a jàppalee ngir yàlla ak yeneen ci bi waay ñu gëstu sonn nañ ci askan wi la ñu bokk. Mm-hmm. sonn nañu tumuraanke nañu. Mm-hmm. xam nga lii neexul di ku sa yaay du dundee nii xam nga lii neexul ah tey su amatuñu benn yaakaar fi mu ne nii. merci. wàlla di julli si yonante dafa fekk xanaa ñu fi nekk dañu nekk ay jullit rek mhm. di muñ mais bu dul woon nekk ay jullit di muñ day fekk heure bu yëg nañu bu baax a baax ba mu weesu fi mhm. ndaxte te képp ku fi nekk nekk ko ak sa njaboot mhm. yow sël yaa fiy dund te xamoo sa njaboot nan la ñuy dundee te gis nga dund bi amul lu ñu ko teg yàgg nañ ko jooytu bu dul yi taan forage yu ñu defar ba pare def ci ay multi milliards ba pare bàyyi ko ni tàkkul bu ñu xëyee chaque jour dinañu pompe plus de vingt fois mais daal loo pompe ndox mi day ñëw ndaxte day baal hmm. nag bi moo yéeg nañ ñu si jàppale te yàlla tax hmm. ndax ndax seen maire am na lu mu jot def est-ce que eh, nañu oto wala du genre maire bi moom def fu si woon oto mais bu mu ñëwee moom franchement parlé ñëw na ba fii gis ko ne ñu comme te lii la da ngeen doon jël si seen courage di ko utiliser loolu dafa mel wàcceel nañu wax dëgg yàlla fiil ca kaw nañu téye leen ci fiil bi en attendant ba fii muy deñ mais tamit li lii du solution ndaxte boo ci dëkkee chaque jour di ŋàcc boo ŋàccee mun nga def trois heures temps mu ñëwaat kooku amul benn amul benn njëriñ kon kon dafa ngay jël ndox rek di ko seggaat si kaw si kaw xaw ma kii nan lañ koy wax tame du dem fenn mm. kon nag lu ñuy ñaar nañ jàppale te yàlla te dañu war a jàppale hmm. dañ leen far pour ñu jàppale jaam yi nañu wàcc si terrain bi ñu gis nit ñi nu ñuy dundee du ñu toog di dund seen dund yu neex te lu luñ fa fu ñu fa nekk nit ñi ñoo leen fa teg hmm. te léegi léegi bu ñu soxloo nit ñi pour nit ñi nekk dañ leen di ñëw di leen seet hmm. kon nag ngal la ñun tamit bu ñu amee ay problème la ñu taw si suñu ay problème ndax problème bi fii rek la wala am na yeneen kër yu ne seen problème boo tourné environnement bi yëpp ndox même ñoo ci xam ne amuñu ndox amatuñu foos fu ñu ñuy gaanuwaay ak bopp fu ñuy sanguwe kon nag nañ ñu jàppali ci loolu nit jullit foo ne il faut nga am fi ngay defaroo boo bëggee jaamu yàlla sa nga mën a jàmm mais xam nga ne kenn mënu fi jaamu yàlla hmm. ki la téye téléphone bi boo bëggee julli damay dem ba këram julli ñëwaat muy guddi muy bëccëg il faut ma dem ba këram julli ñëwaat ba fii hmm. sangu fa waat ñëwaat te boo sangatee bu ñaata fi ngay hmm. dugal kon nag mun nañu ci jàppal kii du daar muy nab nab daa ngeen di wiy ndaxte daaw ñu ko doon tiire muy dem kon nag bu ñu fi indi benn jafe amul benn jafe-jafe ñoom rek ñoo ci taxaw nañ ñu taxaw nañ ñu jàppale ñu fa yàlla tax loolu rek lañ ci soow time.